jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi ci final raw gàddu bi wara dox ci diggante Omar Diouf féete ñu càmmoñ ngemboo ngemb lu weex ak Amadou Korka Diallo féete ñu ndi joor Amadou Korka jàllo nag moom mooy Kaaw Gourdin moo fi mujjee bëre ak deux loolu leer na jaajëf Bukar ndeysaan Amadou Korka Diallo ñu gën koo xam ci kaw Gourdin ak Omar Diouf kaw Gourdin Omar Diouf eh, eh, kaw faxat na ko mu moy kaw Gourdin moo leen woon ginnaaw wala moo yore ngemb ngembu lu bulali Omar Diouf moo féete ndeyjoor moo yore ngembu lu weex li kaw Gourdin Omar Diouf final raw gadu ñoom ñaar ñëpp Dakar lañ jóge Omar daw na jël kaaw kaaw bañ na jëm na ko mboti rëpp nañ jogaat Omar ak Gourdin Omar raw gadu Omar Kaw Gourdin Kaw Gourdin moo leen xaw woon Omar moo yore ngemb lu bi yàgg na tamit Omar am na ngemb waaye Kaw jàppul fu dëgër Kaw Gourdin temps yële moo doon bëre ak 2 Giga 2 Giga daan ko. waaye gis ngeen ko tey mu ngi fi si àll bi di compétir waaw lii laa dangu mbër compétir mbër bëre kaw tël na ko mu daw na jël ko jël na Omar jëm na ko génne kaw gurde Omar kaw dina ko génne saako yi kaw gurde Omar final raw gadu ñoom 300 000 francs lañ leen tegal dans les normes ku daan lub déedéet di nga am 150 000 francs kaw gurde génne na ko Eh, Omar Omar daw na jël ko kaw jëm ko mbotti mu moy kaw Gourdin ak Omar kaw Gourdin Omar ak Omar ñaari mbër yaa nga ca Omar lonk na ko taxabal waaye dafa sori kaw Gourdin ak Omar oh kaw Gourdin Omar ñaari mbër ñaari mbër yaa ngi bëre Kaw Gourdin Omar Kaw Gourdin koy jéem a dajale tegal 16 mu mooy Kaw Gourdin ak Omar rotation lonko ko caxabal ba mu mooy Kaw Gourdin ak Omar ñaari mbër yi bëre nañ oh dégg ngeen public baa ngi public baa ngi leen di tàccul nee naa leen amateur yi lii la ñuy bëgg di gis ngir am satisfaction te su ma ñaar ñoo bokk dëkk Dalifort waaye gis ngeen liñ bëre. même bu ñu mayantee sax maanaam simil def nañ def nañ simulation te mën nañ a mayante sax parce que mën nañoo bëre yàqul dara. si rek Kaw Gourdin ak Omar te ñoom ñaar liñ bëree maanaam ñi ngi kontaan si Kaw Gourdin daan na ko Kaw Gourdin daan Omar Ndeysaan arbitre bi sifflé na lii nag mbokk yi moom mooy final léger bi muy tànk yi ni nu koy waxee. ndeysaan diggante Elas Ndiaye ngembo ngemb lu vert won ñu càmmoñ ak géant bu Bargny ngembo ngemb lu weex li won ñu ndi joor pour l'instant loolu mooy xew fii ci arène Sud Ndour bu Njaanjaay Fatick ci làmb ju rëy ji nga xamante ne nii waa comité de gestion bu arène biram Tening ñoom ñoo ko tëgg jël lépp daal di koy jagleel kookee di seen wëlëre di seen xarit yàgg jàppale gox bi ndeysaan muy Seex Kanté moom la ñu jagleel bi le mu nekk làmb joo xam ne ni ko wolof di waxe foo sànni mbàtt mu tag alentour yaa ngi fees tribune bi ñu monté fees na dell mooy tribune bi accueillir invité yi invité yi ànd ak ministre Cheikh Kanté mu ngi noonu diggante Géant bu Bargny ak El Hadj attention Elhadj Ndiaye jël na benn loxo càmmoñ ba jaarale ko ca ndigg la jàpp ngemb li ba mu dëgër ndengeñ ko nag teg ci bàyyiwu ko mu liggéey mais Géant bu Bargny dafa mat sëkk mbër gis nga ko xëccoo ba ca suuf la xëccoo loxo ya ca suuf loxo ba mu jàppoon ca devantiru ngemb ba moom général wala moom Géant bu Bargny tàqar ñi na ko ba mu set waaye delloo na fa loxoom moom El Hadj jëm na mboot kal na ko jël na tànk ba fan la jëm ak moom El Hadj nga bëgg a def saay dafa njool arbitre na defar ngemb li waay na kal na ko da koy kal da koy kal jàpp na ko ba mu dëgër e sukkar bi na ko laa ilaaha illallaah géant bu barñi daan na ko jël bu amul benn werante ey eh, waay lii lan la nii ndeysaan xool ko ordinateur tibb na suuf jox ko daal di koy lëng ya neex waaw asalaamaaleykum mbokk wasaare ah, ñoo ngi ak géant géant nuyu nañ la waaw fay nañ la Cheikh waa Lac Rose ñu leen di fay bu baax waaw. maanaam nga ñëw tey euh, Ndiaye Ndiaye Fatick fi jël final bi lan la lool lan la lay def. ah ñun miin nañ final <laughs> waaw miin nañ final moom da dañuy final rek xam di ñaan yàlla mu continuer bañ a arrêté quoi xam nga di sant waa Bargny nag xam nga Géant nu mu mel rek waa Bargny la. <laughs> mais est que du Géant dafa ëpp dafa ëpp say doole. non du loolu sax ñoom ñoo mag El Hadj bi bi ma ma seetaan boobu maa ngi uppoo si gaalu Kanaar yi quoi waaw bi ma seetaan muy bëri waaw moo mag fuuf barki yàlla. léegi looy wax sa supporter yi nga xam. ah gars yi rek may jàpp gars yi di dóor xam maa leen man maa leen daax bëre maa leen doole yàlla def na lool. bilaahi. ale rafet na looy wax ci Lac Rose TV ak Wassare. Lac Rose TV sa kaw sa kanam. Wassare. sa kaw sa kanam laf cat yaa na bu leen cat dugg. jaajëf rafet ngi siyaar bu baax maa ni temps yi affaire waaw damaa sonnoon toog doon noppaliku nag. Ah, doon yokkaat doole. non non sax. Ah. lamb gi yaram bi quoi lamb gi du doole. Ah. ku yàlla àndal rek yaa fi nekk. mais ay pas doole. ñu ma ëppoon doole ñoo fi nekk. fo Forza wax naa ko sa combat nee na ma pare na pour pour pour pour bëreeg yow bi. waaw bu ñëwee bu fekkee pare na pour ñaan ma revanche man mu may ko man du ma taxaw di ko ñaan revanche. waaw mais euh, problème bi mooy que man di entraîner te bëre woo pertement la seen ñaar ñëpp. ah kon bëree mooy seen intérêt yéen ñaar ñëpp. man man maa ngi compétir wàcc naa di bëre man bu ma gisee baax na bu ma gisul baax na. mais ma soxla am combat. waaw ma soxla am combat. Ah, ok jërëjëf. Doudou Sané ziar. delloo ziar. rek li wër. waa ça bien normal. tey nga ñëw. waaw gis nga. di tër ponkal rek. waaw gis nga sant borom yu baax a baax. daa mel ni bëre bëre nga andi bëre 100 pour cent. ah comment fan yii yëpp dama si ay tolof tolof quoi. mais lamb noonu la. waaw gis nga moo tax ñuy jéem rek. ku nekk day waaj ak i rek ñëw wut si. waaw gis nga. ëbbali ñëwul. waaw gis nga noonu la fa demee quoi. mais naka lamb ji nga ah. yëg ji nga war a final. non sant borom yu baax a baax. Ah. ñun moom non kooku moom daa borom baax la quoi kooku am na fayam billahi barke Seexul Xadim kooku daf maa yàgg a taxaw billahi dañoo yàgg trop wax waa Diofior kontaan si ñoom rek di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm bonne ndeysaan mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu leen di fàttali rek ndax fàttali du yàq ñu ngi ci arène Ngor Site Ndour bu Njaanjaay Fatick ci gala bi nga xam ne ni waa comité de gestion bu arène Biram ñoom ñooñu fi woo premier wala drapeau drapeau Cheikh moom la ñuy amal fii mu nekk làmb joo xam ne depuis le 27 la ñu ko commencé ca raw gàddu ba le ca tànk ya le tey ci poids lourd yi ñu am fi nag ñetti final raw gàddu bi joué nañ seen final ba pare lese bi bëri nañ seen final ba pare lourd bee nekk noonu diggante Doudou Sané la ak Pakala ñaari mbër yi dañoo tollale ay avertissement ku ci nekk am nga deux temps bi jeex arbitre bi leen prolongation pour xam ba xam ndax day kenn kii day am avertissement lamb ji jeex wala dañuy bëre lamb ji jeex arbitre sifflé na génn seen diggante rek Doudou Sané yéeg ci kawam Pakala laa ngi koy jéem a ëñ Doudou Sané xar ko Pakala oh, dafa diis Doudou Sané xar na ko sànq mais pakal dafa diis ndeysaan ñu ngay bëre Doudou Sané da ngaa ndengeñ ndengeñ nga te defoo dara dañ lay avertir nga ñàkk làmb ji dañ lay avertir nga ñàkk làmb ji Doudou Sané koy tere lii arbitre bi da koy tere ñàkk nga sa làmb Doudou Sané boo deful action di nga ñàkk sa làmb Doudou Sané ak Pakala defoo dara loolu bi da koy bañ e pakala boo ko joxee wet gone gi da koy lekk ba mu jeex wër la ndombo def la nam def assurance bër bu la tollee fii li muy liggéey ngay dindi mais doo ko bàyyi muy gën di liggéey am na ñaari loxo ci ngemb ba bari ndengeñ la empêché la nga jàpp boo jàppee bu defee rotation jàpp bi dañ bu yëlboo jàpp bi dañ donc mieux vaut bu jàppee ñaari loxo yi yow nga jàpp benn loxo sa beneen loxo bi liggéeyu dara jéemal a la tekki fi mu jàpp waaw jéem a tekki fi mu jàpp loolu moo gën waaw kay Doudou Sané loolu laa d'accord Doudou Sané Pakala eh, Doudou Sané jëm na ko wéyale waaye Pakala wéyut bu doon man ak jiili bu ma ko wéyalee wéyut rek man ma wéy attention Pakala bàyyi na benn loxo mu ngay liggéey waaw jàpp na ca tànk ba jàpp na Pakala Doudou Sane da lay takk Doudou Sane da takk Doudou Sane samp na benn loxo ci Pakala mboot na ko Pakala mboot na daan na ko ko jaayee xañaan baas yo kor njuuge e doxaneem na maya xaanjome e jogo cirol sengoor waagu lamine e doxaneem na maya xaanjome e jogo cirol sengoor waagu lamine ndem na ma yaxa njome jogo cirol Senghor wa gulamine e doxa ndem na ma yaxa njome jogo cirol Senghor wa gulamine